الله الله asar hudu bamba nee na yan oo sukuri ama jaraja illa sakora shayra jarawa ala wa sakora na bamba la ila ila ila sukora ila ala ala sakora sopp Cheikh Rafa an loxo ca kaw la ñan bu xal bi bamba jaraja na ina ne xal la hatanga idan ben na bamba la ila ila ila ila qalbi da awda awda awda kuy bay bal defal lii ci lam ñal bu qalbi baba jarajo inni qalbi sera jaro la dawa intal be baba la ilaha illa jarajo qalbi da ayni qalbi awda awda awda awda ida in jegna la warna dugu jegor ya da du janan ya may dam ma la ilaha illa waaw ajjanay Serigne Touba jàngoog ku ci bëgg a bi da nga jóg taxaw màggal si Ahmadou Bamba jóg leen. dang ñi ndanga ne ko teg bay daam ca aljana. Sadiou Mbacké baax na nga jóge ji de. nga yére Mbàkke bay sar te taxulaa bew Mbàkke doy la saalu turi saalu taxulaa bew jamano yaanu moom te taxulaa bew doy nga bu ngeen yaanu moom taxulaa ay saal sa baaya demoon géej taxulaa ay saal sa baaya demoon géej ku sopp Sëriñ Saalu ayama demoon ngeen. Abdoulaye Serigne Saliou ayama demoon ngeen. bu topp Cheikh Ibra Fall. waa ma sutura. ma dege. topp Cheikh Ibra Fall. sopp maam Cheikh Ibra Fall. ndayaanu sutura. ma dege. maam Cheikh Ibra Fall. ndayaanu sutura. soxna Fall Amadou Fall. añakana Ndiaye Fall. ana Baye Fall yi ana Baye Fall yi. فال أن يقنا نائفا كشب سهر فال أمر فال كشب سهر فال أمد فال أن يقنا نائفا لب فال لب فال سحب را ورن لي لب فال لب فال سحب را ورن لي لب فال Lamp Fall Cheikh Ibra waral li Lamp Fall Lamp Fall Cheikh waral li Tara Fall Amadou Fall añakana ñaayi Fall Amadou Fall añakana ñaayi Fall Maami Sëriñ Taala Amadou Mbenda Fall Maami Sëriñ Taala Amadou Mbenda Fall Cheikh Ibra farma yasin daw mu ci bul maale nu yow farma yasin daw mu ci bul maale ku sopp Cheikh Rafal da bay maam sey njaay cowli cow ni yow fa ku sopp Cheikh Rafal da bay maam sey njaay cowli cow ni yow ku sopp Cheikh Rafal da bay maam sey njaay idu kenn yow fa ku sopp Cheikh Rafal da bay maam sey njaay idu kenn yow fa Cheikh Rafal ama sudura ngal tahula Cheikh Rafal Cheikh Ibra Fall bama sutural taxula li fal nu bàyyu mbeen borom dindi jaajëfate borom dindi jaajëfate tam bàyyu mbeen borom dindi jaajëfate ku sopp Serigne Fallou bàyyu mbeen borom dindi jaajëfate borom di di jaajëfate sopp Serigne Fallou Baye Mbel borom di di jaajëfate sopp Serigne Fallou Baye Mbel borom di di jaajëfate sopp Serigne Fallou Baye Mbel borom di di jaajëfate sopp Serigne Fallou Baye Mbel ku sopp Serigne Mbacke soxna loo borom te yif jaajëfate ku sopp Serigne Mbacke soxna loo borom te yif jaajëfate ku sopp Serigne Mbacke soxna loo borom te yif jaajëfate ku sopp Serigne Mbacke soxna loo borom te yif jaajëfate borom tayib jaajëf tey laasa aday nga jurel ñaar sopp Serigne Mbacke sopp na loo borom tayib jaajëf tey laasa aday nga jurel ñaar Serigne Mbacke Serigne Mbacke Serigne Mbacke Serigne Mbacke Serigne Mbacke Serigne Mbacke sopp na loo borom tayib jaajëf tey laasa ana waa Daaru Xudoos Serigne Mbacke Mouhamed ak Serigne Mbacke soxna loo Mbacke yif jaajëfate sopp Serigne Mbacke soxna loo ay doy nga sopp borom jenn yaa ka baax natinal kaba angal sopp sëriñ nena yaa kaba borom jenn jaajëfate sopp sëriñ nar jenn baax borom jenn jaajëfate sopp sëriñ nar jenn baax borom jenn jaajëfate Ibra Faal yaa ma suturaal leen maam Seera Faal na kenn yow Faal du kenn yow fànn leen maam Seera Faal du kenn yow fànn sëriñ naar jenn baax borom jenn jaajëfate sëriñ naar jenn baax borom jenn jaajëfate taxula benn faal day nga kuréel waaw toogaay jeex na soxna yi jóg leen màggal soxna jaara borom poroxaan jóg leen taxaw màggal soxna jaara jóg leen ni ji ay dëkkandoo soxna jaara ni ji ay dëkkandoo ana so pay soxna jaara ni ji ay dëkkandoo soxna anta njaay wa ala anta mama ni ji ay dëkkandoo ku sopp soxna jaara defal nii sa doxo ni borom tuuba ko def bu jàmbaar lay la lay lay la lu ne magal borom gaawaan dina ki ba ma jaa jam sa il la jambaatin sëñ Muntaxa jam sa il la jambaatin al Muntaxa jam sa il la jambaatin Cheikh Muntaxa Basiru jam sa il la jambaatin al Muntaxa bu sopp Cheikh Muntaxa ba jam sa il la jambaatin la jàmbaati Mustafa Basiru tansair la jàmbaati Mustafa Basiru tansair la jàmbaati ma waral am toog bu ndi bu la jéebal taala anta doon nga am ñay xëy ca tool yaa saf la daara moo sell ku sopp sunu dara defal nii sa borom Tuuba haw ka yëg dong ba am mu aaroot. janjanaar ba mooy wax li la dong ba am mu aaroot. janjanaar ba mooy wax li la dong ba am mu aaroot. janjanaar ba mooy ne. suuru fan si Tuuba dafal ba muy la. naan ma yaa ma daal. sopp Cheikh Ibra defal nii sa loxo bi borom Touba ku jëfal ba muy leeram ku jëfal borom Touba ku jëfal ba muy leeram maam Seydi Fall Serigne Touba sa am di xat di fal baax du fal Serigne Touba ku jëfal ba muy leeram Seydi Fall Serigne Touba sa bi gëgum ma faala suru fal Serigne Touba ku jëfal ba muy leeram Tuuba ko jëfal ba muy leer kay moo tax it dëndam yaa ngay dib te yëpp nan jëp man te yëpp nan jëp man te yëpp nan jëp Bamba mooy nekk ba xeer ay laay la la moo tax it dëndam yaa ngay dib te yëpp nan jëp Bamba mooy nekk ba xeer Ibra di lamp bay maa ngi yi soxna jaara abal ngi ko daan mo nan war war dib to fi kenn ko ko kan to tay ba soxna jaara yaa ko sopp soxna jaara defal nii sa taw ngir borom Tuuba waaw kay tam na jaara aba nugen abdulan mola tuddu to jaara ya bañ bëgg maam jaara lo bëgg maam jaara lo jaara lo waaw kay la gëm dañuy def na na gëm gi jey ba borom jannatul mahwa ñoo la gëm texe ndax ku sëpp Seex Saali woowa ñoo la gëm texe ndax ba ci jéem màggaleen Seex Saali ci a bàcc njaay dëggati nit ñi loolu yi génnee ku ci bëgg dem gaa gaa ko jootine maa ma su ci bëgg dem gaal ngaa ngi kaay leen ñu dem ay gaal yaa ngi tegal fi ne paax murid ga te seexal ba fii yoo nan fa dem murid gaal gaa ngi dem fi ne paax bàyyi sëñ Muntaxa nan fa dem murid gaal gaa ngi dem fi ne paax Cheikh Abdul Hakim Basiro nan fa dem murid gaal gaa ngi dem fi ne paax